ay ca mi ngi noonu nii rek lañu leen di nuyoo tey nag ci euh, tey la lan mercredi <laughs> nii rek la leen di nuyoo ci euh, ci mercredi bi taalal sama laay nga puus tuuti abaa mën nga puus bu baax ba ma sës fële ca miir ba sës ma ci miir bi abaa waaw kay baax na fii baax na baax na waaw kay booy waaw kay abaa karaa waaw kay waaw kay nii rek la ñuy ànd ak yéen nag ci mercredi bi ku ci nekk foo mënti di nekk rek euh, gannaaw bi ñu santee yàlla ñun gërëm yonant bi yeewu nañ alhamdulilahi rabbil alamin stress bi mi ngi wàññeeku bu baax tout va bien chez nous ça va très très très très bien parce que tey Baye Fall yee ñëw de jël leen seen garde tey émission bi dana toj ñi ndakaaru bëgg laa invité man <laughs> xale yi ñoo nekk ci national xam nga yéen ay tournée international ngeen di wax ndax Europe danoo wéet fii nag wuy ma ñi mën a ngi fii xale yi ñooy def ay tournée nationale ci réew mi di bëtt Cees jar Kaolack dugg Gàmbi génnaat di lëbaje <laughs> émission bi tey tey xoolal teg leen seen añ yi benn place ngeen fay gaz yi balaa diwlin yee tàkk parce que tey fii dana takk tout va bien chez nous waaw ça très bien stress bi wàññeeku na dafa mel ni que jëlaat naa sama rythme dinaa maye xaalis nag hmm? defe naa nuyoo naa de su ma ko fàttewul baal leen ma salaamaaleykum maaleykum salaam <laughs> c'est que ñi ñëw ma tiital barke Cheikh Béthio Thioune nii ah, ñoom ñoo fi woyoon ah, ku ko jël ci ñoom ko jëlee <laughs> ay tey fii dana neex xam naa tiktok bi dinañ amaat ay yu bees ndaxte papa bongo nag ba mu ñëwee ci la dagg sànni xew yii awa ah, bandi la ñaareel xaw ma lan ci kanam tuuti loolu ci lañ ciy wax dinaa dugg nag ci dinaa dugg nag ci euh, ci Facebook live bi maye tey xaalis bu takkoo takkoo takkoo takko amuñ greffage nag fan yi mais am naa ay xaalis yu ma leen mën a may loxo vingt cinq mille vingt cinq mille vingt cinq mille ba midi di jot bala ñoo tàmbali loolu rek dañuy wax euh, chapeau à euh, président de la république Macky sàll jërëjëf yàlla na la yàlla gën a defal jàmm ak ndam dugg nga ci histoire Afrique nag Sénégal la nit ñi wax mais da nga dugg ci biir histoire Afrique Macky Sall ndax nguur ni mu neexee macha allah ak la mu àndal lépp nga daal di ko jël dëxëñ ko ndax lan sa kàddu gi nga xamante ne moom nga joxe woon wan nga ñu ni gor nga wan nga ñu ni am nga kaddu wan nga ñu ni nitu parole nga barke Cheikhul Khadim Mbacké yaa dugg ci réew mi nag mu naqari nga ne cirib mu neex oto yi di daw tali yi féex teer bi ñëw BRT bi yegsi nga boole lépp nag. tëxañ ko bëgg ko fee bàyyi wan ñu gannaaw ndax lan sa kaddu kese yay gor <laughs> doomu miir timboo bi mooy gor barke Cheikh Béthio Thioune Macky yal na la yàlla defal jàmm mais na nga entraîné du sport bu lekk lu bari bala ngaa jël poids ndax xam naa réew mi mooy jooy nii toppaat la jëliwaat la indi la <laughs> damaa xam ñii sénégalais yi billaahi yow wutal foo dallu rek marem di la toppatoo nga nga ngay noppaliku ñu lay bës président nañ lay toppatoo président duggal saal ndax réew mi ngi nii di la jëlaat Sénégal a ngi nii di jooy na rëccu nañ regretté pourquoi nit ku baax la ah xam ngeen lu tax ngeen war a xam ni euh, fi mu ne ñëpp nag mën nañ wax ñun ñëpp libéré wu nañ ñun ñëpp Macky tijji nañu nag ku ne mën ngaa naaw <laughs> danoo danoo bëgg a farme kenn ñemewul mais comme Macky dem na fexe ngeen ba mu dem waaye kàddoo ma ko fi jëlee fi ne nii nag nañ leen ko ñaanal waaye tamit Macky del sport del sport bu baax ndax réew mi à tout moment mën nañoo tourner ci yow dañuy essayer ñun looloo ñu neex ay événement tabaski màggalu Touba Korité ñun il faut que ñuy am événement il faut nga dem ñëwaat loolu dafa am sax ci football <laughs> toogal ban kii football ñu génn kii dugal kii bu mënul ñu ne la dugal ci biir di nga ñëw yow souffler rek congé nga jël congé mu ngi noonu ñi fi des nag ci ñi nga xam ne ñoo war a sànni ñoo war a bokk ñoom itamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ah, muy euh, ñi fi des ñëpp ay ñoom Sonko xalifa sàll Bart ak Karim ñeneen ak ñeneen man na xaw ma si politique dara makee ma neex rek te pour ngeen xam ne Macky dafa baax du ñun de yàllaa ko wax coupe bu ñëw mu jël ko tali yi baax BRT bi di daw TER bi di daw lépp di daw baaxaayu Macky nag banlieue bi ñoo ko gën a yëg. ndax taxawatuñ fenn dëgg la ah BRT bi da ngeen koy jël rek mu wàcc leen eh waaye lay <laughs> moo tax ma ne ko xool président lii ñu la defal nii dafa gën te xamoo ko loolu mooy suufleel ba pare bul dem rek tëdd gën a gëstu ci àddina bi boo delsee yow ci lan ngay tàmbalee rek ak kay te xam ne yow dañ la teg nee rek pour nga noppaliku incha allah gis nañ tamit Youssou Ndour def na discours bu bu daw yaram euh, waaw kay loolu la kilifa di def nee naa ko 2012 ba xale yi soxlaa da génn taxaw ci mbedd mi barki Serigne Touba Mbakke ñu ëlbatikuwaat ne la yemal ci woy nga dem nëbbatuwaat sa biir kër kon moom xale yi rek lay topp yuusu xale yi rek lay topp bañ ne fu Youssou ne fu Youssou ne Youssou daa génn sol casquette taxaw ci mbedd mi di rayanteeg yéen pour lan bëgg lu neex dëkkam. bañ ne Youssou waaw buggul politique da war a lii daa war a lii Youssou dafa arrière ndànk toog croiser les démb nag gis naa ko ne Youssou Ndour def na discours ba xale yi dee fu mu ne boobu moom mi ngi téye njabootam di leen jéem a yar pour bu ñu dee ñoom ñi dee yal na leen yàlla xaree àjjana waaye ñun ñëpp dañu war a ànd téye suñuy njaboot ba du ñu dee ci yii ah leneen mën na am suba gannaaw suba 2010 2030 waaye ñu xam ni doom danga koy tënk. mënoo téye sa doom bëgg mu rëcc may téye sama doom bëgg mu rëcc Youssou Ndour di xool nu mu téyee fameem bëgg ñu rëcc muy dem ci famille jàmbur di leen téye ah kon bàyyi leen xel da ngeen naan quoi bu loolu amee ngeen ne lu tax il faut ñu teglante affaire yi xàmmee kilifa yi xool ku ci nekk njariñ li mu amal réew mi li ma ne woon un jour balaa kenn di wax ci bàyyi kenn tafal sa baay xool lu mu def ba nuppi dina yomb loolu nga wax ci bàyyi jàmbur parce que tey boo jëlee yuusu taf ko yuusu lu tax génnoo yuusu lu tax ñëwoo yuusu lu tax nga génn li tax yemoo ci wéy lu tax ngay politique boo paree da ngay taf sa baay ne lii ma wax ci yuusu yëpp ak njariñ li yuusu amal àddina bi yëpp man sama baay Issa Mbaye lan la amal askan wi bàyyi ju depense am matul ngay wax ci bàyyu jàmbur ju yor réew loolu danger la hmm? Sénégal yàlla na fi jàmm sax ñun ñëpp yàlla nañu am jàmm ci barki Serigne Touba ñi mat vrai kilifa yëfu kilifa rek la ñuy def jërëjëf sëñ Mountakha Bachir kontaan nañ lool gis nañ lépp Mbàkke ñi ngi yëg lépp yal na sa jàmm yàgg yal na yen wi oyof noonu lañ koy ñaanalee nag kër kilifa diine yépp waa kër euh, Laayeen Ñaseen Njaasaan Cene ba ñépp ay jàmbaar lañ parce que nag yéen a tee dëkk bi tàkk jëppet nee naa leen kilifa diine dafa am solo ci réew bala ngeen koo xam ñoom ñu nëtëroon waaye nag heureusement ba nga xam ne ñoom ay missionnaire lañ duñu mës a bàyyi réew mi fu ñu toll ñu ngi ñaan pour yàlla di fi def jàmm foofu rek lay jaar euh, tënk laaj leen nag yéen ci loo leen ne tey nee naa leen tout va bien chez moi <laughs> fii tey dana dama koy fii du ma ko dëbb de fii tey xam lu ma koy dama koy mule ne xam ngeen mule ne dama koy wol soo soxna Jojoon noonu rek laa tikkee tey di fàttaliwaat Macky Sall Macky jëlal recul rek réew mi ñooy ñooy yeewu nii di jooy xàccit naan na ñëwaat na ñëwaat hmm? yàlla bëgg na ko ànd naag moom ba pare yaru na macha allah yal na la yàlla lafal cat Ablaye Wade mi fi jóge sax Macky la bëgg xam naa ay <laughs> Aïcha loolu nag message la woon uh, di ñaanal ñi nga xam ne nag ñoo war a ñëw après Macky ñoom it yal na leen yàlla may jàmm Aïcha ñu laaj leen ci lu ngeen nekk doo a dugg ci Facebook yow wax man lay def bëgguma ci dara man xaw man lay def mënuma ci dara wax naa ko dégguma mënuma ci dara soit la soit la mënuma barki Serigne baa Mbacke kii de <laughs> dama foog ne sax François Bodon lay liggéeyee coof la coof waxuma la coof yii de coof bu teer léegi sama doom laa koy may bu ci kenn teg xelam Aïcha bala ñoo ñëw ci maye xaalis bi dañuy def cent pour cent ambiance ba pare euh, doog a ñëw nag tey ñëpp lañuy may xanaa buñ mayee euh, plus de cent personnes dinañ maye dinañ dajal Facebook live bi tey daal dinañ tànn cent personnes yoo xam ne dañ may ku vingt cinq mille vingt cinq mille parce que amuñu greffage awuma beneen cadeau mais am na ay loxo vingt cinq mille vingt cinq mille Aïcha ñu daal di dem rek ci ki nga xamante ne nii mooy Aïcha ñu daal di dem nag ci ki nga xamante ne nii mooy euh, mooy euh, mooy euh, mooy mooy Assane après Assane Ndiaye ñu jël bi bi xew bi xew temps yi dosé ay ñu dem déglu Assane Ndiaye bu baax a baax a baax euh, fàttali leen rek ne leen heure bi jot na heure bu baax bi nga xam ne mooy defar seen ay journée Sénégal yàlla na fi euh, jàmm rek di am man moom Sonko bu faloo am na lu ma ko bëgg a wax man waaw moom bëgg naa bëgg naa Sonko jox ma marché këyit <laughs> yéen a ngi ree mais looloo am xaalis xam ngeen këyit est-ce que këyit yi ñuy yi ñuy saraxe si mbedd yi di ko jox taalibe yi moom la ñuy dugal ci machine bureau yi di tappe man suñ ko marché këyit rek laa bëgg nga jox ma marché këyit wala tonton Idi <laughs> xalifa moom bu dee moom la sama papa la dina ma jox marché bi mais ñaar ñii ku ci yéeg rek na ma jox marse këyit Barth c'est mon ñoo jàkkaarloo kër moom xam naa moom it bu faloo dina ma jox marché këyit ay të këyit rek laa bëgg man ma naa leen di fournir yéen état bi naa leen di fournir ay këyit ay papier blanc loolu rek laa bëgg ko ci njëkk a toog ci yéen euh, ngeen woo ma jox ma marché bi marché këyit Sénégal Sénégal boo sañsee ñu mer boo jooyee ñu kontaan <laughs> réew mi neex tey bu Sonko toogoon ba fal ma dara ngay gis nit ñi daanu mais kii jàngul kii mais lan la tekk ci réew mi kii fu mu toj da ngeen di fàtte ay ñaanu waaju xanaa <laughs> mooy tax ngay dox di for jamaa ci mim réew yii lay def ñii kontaan man yii lay def ñii bég di gën a may def yii ba tey ñii mer di gën mer <laughs> yaa ngi léemu di doom nday <laughs> non jinne ji takk nañ ko bul jaaxle fii ñun rek ñoo fi nekk tey <laughs> ah dama man tooñ c'est que man barke Cheikh Béthio lu ma dal baax na si man ndax dama maanaa tooñ sama defo yëpp tooñ la damay xëy di def lii di kontaan kontaanloo ñi nga xam ne dañuy bég ma leen di gën a bégal may xëy di sànni ay xeer ñiy mer di gën a mer <laughs> baal leen ma mais yii yëpp ambiance la barke Cheikh Béthio lii dara dugaluma si lu dul di foog yéen ngeen di mer mais dëgg la booy réew mi booy jooy ñëpp di jooy ànd ak yow nga ree ñu naan kii dafa soof ay jooy day yem buñ leen attêté dee leen toog ku mën a dëkk ci xeex ay ca mi ngi noonu la Lyon merci beaucoup kontaan naa ci yow euh, kii mi ngi tudd euh, Marc Diop may nañ la vingt cinq mille Marc Diop may nañ la vingt cinq mille fa doxee rek nuyu sama yaay ji yaayu Malick yu Roqaya ak Fallou Volti Diop borom Italie waaye borom Marseille maa ngi lay nuyu bu baax Diop a juba di nuyu Binta Mbaw Mbaw ngaa la uudee maa ngi lay fóon bu baax Fallou mbay may nañ la juróomi junni yow yi tamit di nga gis sa message ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy sa transfert d'argent bi nga am ci sa téléphone waaw Fallou Mbaye may nañ la juróomi junni yow yi tamit euh, Jabu Fay Jabu Fay may nañ la juróomi junni yow yi tamit di nga ko gis ci sa téléphone Facebook live baa ngi toj xale yaa ngi bindal naa Poté lu ne mais ñi ëpp kër rek lay teral ki ya ngir ree bay bërëngu barka sox bee ca cuun man bëgguma yuus jur ma waaye bëgg naa muy may sama papa dépense <laughs> loolu compliqué wul <laughs> man yàlla tere bëgguma woykat nekk sama papa waaye bëgg naa muy aider sama papa xanaa maa torox ay <laughs> ah, taa nit ñi day day waar ay da ngay toog téye bàyyi jàmbur di ko wax lu la neex man Youssou Ndour kan moo bëgg mu jur la yàlla bu ma Youssou Ndour jur te bëgg muy ete sa baay ci pet alors léegi kiy teral sa baay suñ boroom def sa baay mu mel ne koo ko gën ay ñu daal di wéy rek xam ne liggéey rek ay fay man ci lii ma ne rek kay fay ay ca Aysatu Silla madame Camara may nañ la juróomi junni yow yi tamit tey nii laa koy jàppee ba midi pil ma soog a fëxasu ma soog a fëxasu ay ca xaar leen de tey laa leen di merloo à tout moment nag Youssou mën na génne nekk président <laughs> dama bëgg ñu mer ñu merkat yi lay baal leen ma xam naa am na ñoo xam ne ñu ngi naan kii lu ko Kouthia def baax na si moom baal leen ma baal ma dama mën a foo damay foo baal leen ma baal ma rek billaay damay tooñ yii may wax yëpp xanaa yéen nu ngeen seetaan ah, Mouhamed Silla xam ngeen ko comédien boobu nekk euh, France Ahmed Silla benn comédien bu mag la day tooñ président yi di tooñ ministre yi di tooñ ñëpp ñun nag amuñ chance tey koo fi tooñ rek nit ñi foog ne dara la mais man je mbalak <laughs> juste déconner dama bëgg di mbalak di déconner ah ayte ñu dem ci Assane Ndiaye bi ma ñëwaat maye xaalis euh, maye gum naa presque 200000 wala lu ko ëpp euh, ñu daal di dem ci Assane Ndiaye bi nag dëggal leen ci 100 pour cent cheikh bu ma kenn wax teew ma ko waaw waaw dafay soog a bëgg mbëggeel la ñuy mbëggeel bu jóge kenn du ko tee mbëggeel wooy mbëggeel lu ma ci kenn daanu waa ayee ci kenn gaadu waale ay të bu fekkee bëgg tuula bëgg ni yow yaa ko sagal ayca Assane Ndiaye mi ngi noonu Kalidou Fall Amina jox ma ci xéewal yi la Lyon juumaloo Kalidou di nga jot léegi benn message juróomi junni ci sa téléphone Xaadim Jaw di nga jot message juróomi junni euh, ci sa téléphone man teraluma sama benn noonu li xale yi naan su noon di lekk sa wërsëg doo mën a dara ñàkk pexe la yéexee Facebook bi ñii di def kër rek ñii di def kër ay ca li ma ne gone gi fi réew mi toll ku ciy nàmpal doom ñaanal ko ne ko sa doom yàlla na ko yàlla def mu nekk mag mag mu barkeel mag mu am teraanga mag mu yaru mag mu am sutura mooy loolu rekk deneen ñaanal xale yi bu ñuy nàmp ñaan day topp nit te yéen tamit bu leen xeeb ay ñaan ñaanu tëf billaahi moo gën a foor ñaanu bouteille xam nga li ma la bëgg a wax parce que bouteille da ngay xel ñaar danga naan ni ma ko sangoo baax na téere bi ni ma ko takkee est-ce que noonu la est-ce que defoo sobee takk tak tak dina jàppam du jàpp suñ borom la leer mais sama doom dëkkal sa loxo barki cheikhul xadim ku mën saa yoo xëyee am mag mu la ñaanal suñ borom du leen neenal ndax ñoom danoo yàgg ak yàlla moo tax euh, euh, fonk leen waajur yi fonk leen kilifa yi euh, foofu laay doxee rek ma sewu euh, nu mu tudd Paulis ah Paulis courage yàlla na yàlla may xolu muñ ñi ngi gis lépp normal na télévision bu ngeen ci génnee wax l'essentiel nit nag li muy yëg ci xolam rek la mën a joxe ci télé bu fekkee foowul sans caaxaana ah, dama am stress ci guddi gi yëpp yëpp yëpp yëpp ndax ñeewant Paulis début mariage bi mariage bi après mariage bi lépp coow da ko topp ñu soxor génn ne dof la ñi baax di ko defendre ñu dugg ci biir biiri fameem di leen ruutale gis nga Assane Ndiaye wéy na lu am solo ci journaliste gis nga vrai journaliste day xool li nga xam ne bu ko waxee réew tàkk mu jël tànk teg ci parce que lii ñu def ay mbokki Pawlish ñu génn révolté wu wax ci Pawlish amal lu ñu benn njariñ ñun kër goo dugg papa doom yaa nga fa di reyante te kenn tegu ko tele kenn tegu ko internet amul benn famille boo xamante ne stable na cent pour cent hmm? ba tax na ñi ngi massawu famille Pawlish ku ci mel ni papa Pawlish papa jooy nga démb massa ñi ngi lay massawu ah euh, am nga say raison ndax yaa jur sa doom ñi ngi lay massawu Pawlish courage fonce parce que nag ba nga fi nekkee ba tey dangaa dof dof lu mais doo dof dof dof lu nag ci la ñëpp jaar dof dof lu ba dem ci la ñëpp jaar musoo dof dangaa dof dof lu ba yeg si fi nga yegg te nag naanoo ci sàngara si tuxoo ci cigarette si barki cheikhul xadim doroge wu woo jàppuñ la fenn ngay jëw te taxawoo fenn di fenn kon xale nga sa papa moo wax ak yow bu la dara frustré bu la dara metti su fekkee ne yëg nga ko àndal ak ay kilifa nga dem tuubal sa papa nekk ci sa yoon ndax réew mi gëm nañ la man gëm naa la duma la seetaan euh, musuma la gis aw ma sa numéro téléphone mais dama lay seetaan ci internet bi comme ñëpp hmm? bugguma kuy faagaagal nit bugguma kuy toroxal nit xool leen xale bi mu takk fi mu bokk ak xale bi ni mu rafetee sëy bi ñëpp war cee jàpp puus ko mu dem ndax loolu mooy yoonu siraatal mu sa xiim tey bu ngeen tasee sëyam ci mooy lay dëkk kon bàyyi leen ko mu sëy nekk ci li neex yàlla suñ borom jox ko bànneexu doom bu ngeen yëngalee këram jabaram gis boppam dem seen faute la yéen sénégalais yi ñenn ci ñi ma ko sañ a wax te yii yëpp xeetu kiñaan la ak soxor ndax fekk bàyyi jàmbur di nelaw nga ne ko këpp këpp ne ko est-ce que li sa doom def noonu la kooku tamit nga sol ko ay wax ba mu mer révolté wu génn ci internet beneen yoon yéen ñi génnagul wax ci seeni doom doom kenn du ko yàq nawle la surtout doom ju tuxul naanul sàccul fenul yàlla na sak yàgg Pawlish lu mu sol nit ñee ko ko may suñ borom da koy dimbale rek mais ñun jegewuñ ko mais xam nañ ne amagu fi sax lu ne gàññi kon bàyyi leen xel bu leen teg xale yi bët di jël seeni mbokk fi mu ne tas ngeen famille boobu bu ci yàlla gaawul taxaw rek day yàqu ba faw man bugguma lu ñaaw li gën a tax ma bañ télévision bañ siiw bañ média lii la te dëgg kenn sañatu ko wax ci réew mi ah moytu leen calm down xool leen li war a ànd ngeen laal ci kol tappale ko mu nekk benn xool leen ñi bëggante ngeen boole leen ñi ànd yëpp tas ngeen leen te yéen àndu leen ak kenn loolu baaxul baaxul ay ca courage Pawlish mbay nekk ci rek lii nag day gën a tax àddina gën la bàyyi xel te àddina nag bu la bàyyee xel day xool loo fi def yaay kan say défaut ak say qualité te yow macha allah gisuñ fi benn défaut lu dul ba ngay door da nga ne dof nga parce que da nga ñëw pour dof doflu dof du ànd ak waali Seck dof du ànd ak euh, Viviane dof du ànd ak Bijou Ngoné dof du ànd ak Soda Bousso ñi ngay àndal ñépp ci àddina dof du ànd ak ñoom kon Pawlish fonce bu la lii déstabiliser ci àddina la bokk au contraire lii moo lay wan ni yow ndeke dofoo parce que dof kenn du ko bàyyi xel yàlla na sa jàmm yàgg booy teg ko ci rek ayca ñu demaat euh, ci euh, kilibu bu bi dugal nag ki nga xam ne mooy Laurent le temps que clip bi di ñëw ñu may waat ay vingt cinq mille francs Amina yaa ñàkk non ñàkkuma kiñaan dama am yoo xam ne su ma ko gisee souvent dafa may metti ni may déggee ñuy wax ci Youssou nduur may xaru su ma déggee ci papa Bongo mii dara te ma xam ni du dëgg sama xol day metti bàyyi leen di sosal jaam yi ki lay yàq nag dafa gisul lum la waxal mais billaay bu ko gisoon doo bu ko gisoon doo doy moo tax jigéen ñi takk leen ko rek ndax mënuñ xas jigéen ci lu dul caga takk leen liggéey de li bu njëkk ci néeg lañ la daan jëw mu yem ci koñ baak famille bi mais léegi ci internet lañu lay yàq mu nekk xas national kon ku ci nekk fi ne war ngaa bañ ku la yàq wala nañ leen yàq mais bu kenn nangu ku la ca fekk am leen jom fonk sa bopp nag doylu doyloo yàlla gëm ki nga doon dalay may fit même boo nekkee 2 kilos amoo doole fit moo ëpp doole fuuf ndax fit mooy mooy mooy mooy songu dara mooy yaakaar mooy sumb mooy daal teg leen ko foofu rek bu leen kenn déstabiliser bu leen nangu kenn di leen frustré ay ca réew mi day neex 2024 na te pétrole baa ngi di bal la ñu naan ci ba man di tëdd nelaw bu leen kenn merloo ngeen di dee bañ ko fekkee ay ca ñu dem ci Kéba Seck bi nga xam ne mi ngi yëngal jamono actuellement Kéba mi ngi euh, tournée européenne mi ngi toj Europe fi mu ne nii ñu seetaan euh, Kéba bu bees bi daal di ñëw mayewaat ay vingt cinq mille ay ca